jërë ngeen jëf mbokki internet yi dalate leen ak jàmm ba tey rek la sa gën a fësati ba tey rek nit ñi di ko waxtaanee mu doon génnug àdduna kookee rek di Aziz Dabala mu nekk rek génnug àdduna génn àdduna gu xaw a doy waar lool ndaxte nag daska daat yi faat jël bakkanam moom ak ak ko jarbaatam kookee rek di sëñ euh, borom daaru rek nekk foofee rek sa fa xam ne moo di sukóor yi daa si yëkkati euh, kàddu di xam ne na rek ci seetaan bi rek dafa daal daat yi bëri lool ndaxte nag rey yi tamit ak ni mu bëree jamono ji rek seetaan bi daat na si bëri ak nit ñi seetaan nga xamante ne si na ñoo di seetaan ndaxte nag maa ngi say wax na sax la mu sa jot seetaan sax nit ko xamante ne si na ma ngay nettali wax na rek daat na dégg a yuuxu waaye nag ba tey dootu su dul wax dara ndaxte nag kookee bu defoon la mu war a def daat rek dem wax police wala woote fa yaakaar naa mbir ma dina rek daati saafara waaye nag rey gi daal daat nay ñaaw lool daat koy méttalu moom kooku nga xam ne moo di borom daaru tamit mu doon rey gi ñu rey kooku nga xam ne moo di Aziz Dabala mi nga xam ne rek sécurité bi tamit daati nay des lool fii si biir réew mi ndax ku ne xam ne na rek ñàkk sécurité tax na tamit dem ba rek nit fekk la fa nga nekk ba sa biir appartement daal di jël sa bakkan daal di lay rey si rey animaux ñaaw yi tamit mu doon lu doy waar lool waaye tamit ñuy wax na rek kullu nasin saayxatil mawti ak fu koy yàlla soobee rek ak nam ko war a jëlee noonu la koy jëlee waaye mbir mi daan nay métti lool ba tax na rek borom daaru yëkkati sa kàddu di wax na rek rey gi daati nay bëri lool te seetaan gi tamit si nit ñi daati nay bëri lool te sécurité bi tamit daan nay des lool kon nag kookee di Aziz Dabala kaka rey it ba tey ñu ngay yaakaar na rek enquête bi dina gën a wéy ba tax rek ñu daal si am lu leer ñi ba tax kan moo ko rey waaye nag sénégalais yi ba tey kenn ku nekk yaa ngi say yëkkati say kàddu jëmale ci mbir moomee la